ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikirati nawil wa xalbi arshida barke bam Tuuba kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si boobu ba léegi yéen topp seen chaîne euh, Muxaddamatul Xidma TV ak alxadimiya ak mbooleem euh, télé yi nga xam si ñu ngi fi fii ci biir réew mi ak ci bitim réew muy benn euh, foire boo xam si moom moo jiitu premier édition foire du livre sur la Mouridiya association bi nga xam si moo ŋànk mboolem ñuy bind ci yoonu murit ak làkk bu mu mën doon ak ñi xam dañoo soutenir seen i thèse moo xam fii ci biir réew mi ak ci bitim réew booloo euh, taxawal lii ci ndigalu euh, sëñ Mountakha Mbacké jaar ko sëñ Bassirou Mbacké waaye ñu ànd mu ceeg Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rahin ñu koy defee fii ci jumaay Touba euh, phase bu njëkk bi nekkoon ndakaar kon nag ay bis yi nga xam si ci la nekk ay yi ñëw ñu fas ne ko amale fii ci jumaay Touba Euh, am ay panel yu am solo comme ni nga ko toppee ci suba ba léegi rek gannaaw bi euh, ñaareelu panel bi jàllee docteur Doudou Mané Diouf présenté ñu ouvrage bu am solo muy Maam Cheikh Ibrahima Fall 1855 1930 muy itinéraire de l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk ouvrage bu am solo mu leeral ko ci anam bi mu ko bindee waaye tamit wax li nga xam si moo nekk ci biir ouvrage bi am ay laaj tontu kon ñu dikka teg ci ñetteelu euh, jotaay bi nga xam si. Euh, moom mooy panel présentation des ouvrages ñu war see waxtaanee nag benn ouvrage bu am solo bii nag day ñëw ci li ñu làkk suñu làkk bu réew muy làkk bu wolof. Euh, jëmm ji ju toogal nag kenn dootu ko présenté kenn ci yootu ci yoonu murit muy sëñ Cheikh coro Mbacké di ko ziar bu baax wax dëgg yàlla moom it. mën naa ne li sëñ Tuubaa doon tan ñaanal tu tayyibatan ju ndax dañoo Mustafa ta taxidu muy suñu borom maa lay ñaan nga may ma ay set yoo xam si dañuy yeesal wala bokk dox ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi ak lislaam kon day mel ni ñaan googu suñu borom tàbb na ko ci jëmmam di ko ñaam yàgg fi loolu te ànd ak muy gëstukat borom xam tey jii nag indi ñu téere bu am solo boo xam si euh, les éditions Texe moom moo ko édité suñu bàyyi sañ ndongo dimi di éditeur di bindkat mooy macha allah mu nekk euh, ouvrage nekk diwaanu Mouride Sadix sëñ Basir loo war nga bind ko nag nekk diwaanu cees su ma juumoon moom mii nag nga xam si xëy na daan ñëw ci présentation mu nekk euh, professeur de lettres nekk ab gëstukat ci yoonu murit di jàngale ci lycée bi nga xam si moom mooy CM kere mbay bu Mbàkke bu lycée ex CM Kéré de Kéré Mbaye bu bu Mbàkke euh, ci bu Touba euh, mu nekk gëstukat bind ay téere yu am solo mën naa ni yi génnagul sax moo ëpp yi nga xam si génn na waaye téere bi moom mu nekk téere bu am solo ñu fas yéene ko càmbar comme ni ko présenté rek weesuwul membre fonda membre la boo xam ci ci association des écrivains de la Mouride ci la bokk waaye nekk kenn koo xam si comme ni ñu ko waxee sànq suñu jotaay rek jàngalekat la gëstukat la waaye bindkat la tamit moo waral téereem bi tuddee ko diwaan Mouride Sadix euh, sëñ Basir Lo war ko bind ko moom mii sëñ Cheikh Thioro Mbacke daal koy traduire ci làkk euh, français euh, les éditions téexe daal koy édité téere bi nag boo ko ubbee day mel dana toll ci ñaar téeméeru xët ak yu ak fanweer yu teg. kon loolu lépp danañ ci dugg ci moom continue bi xanaa rek li ci jiitu mooy dañ koy jox kàddu gi mu nuyoog mbokk taalibe yi développé ñu ak exposé boo xam si danañ jël ay minutes mu leeral li nga xam si moom moo nekk ci ouvrage bi laataan na ñuy dugg moom ci ay laaj gi tontu ak ñi nga xam si xëy na ñu ngi topp jotaay bu ñu amee ay laaj li jëm ci wàllu modération bi kon sañ Mbacke ñu ngi leen bu baax bisimilah. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaam ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa salama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, ñu ngi leen ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen sant eh, di sant Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir di ñaan suñu boroom dëgëral taxawaayam ak mbooleem mbokki taalibe kenn bañ ko manqué euh, sëñ Bamba Mbaye euh, jërëjëf ci opportunité bi nga ma jox ngir ma mën a ñëw présenter téere bi nga xam ne euh, damay wax ne c'est une longue histoire ndax l'auteur en question c'est un soufi di dund tasawuf jaar ci bërëb yu bare di taalibe sëriñ Touba sa borom dogal nag il a à son actif une quinzaine d'ouvrages bind na ci yoonu murit lu bare bare xëy na suñu borom daa dogal bi ñu bokkee jataay te loolu may wax ëpp na fukki at fii ci kër sëñ Saliou su ma juumul Touba Xelkom xasida la goo xam ne da ko jagleel Cheikh Salih Mbacke bi mu koy jàngat may wax sama xel naan aka neexoon kii lii muy bind ñu transcrire que ba noppi def une traduction française ndax suñuy humanité dañ ko def à cheval entre l'école coranique et l'école sénégalaise man moom la wax l'école sénégalaise man wax l'école française ci kaw loolu jamono di dox comme ni ma koy waxee texte yi moom da ko bindal da ko bind ci wolofal mais amul woon possibilité euh, ñu édité ko ndax euh, quand je parle d'un soufi au vrai sens du terme moom dafa wan ginnaaw àddina ces moyens sont assez réduit am bés mu envoyé ma benn tex et je profite de l'occasion pour vous dire que ne euh, Baylo un aspect de la poésie wolofal téere bi mu bind man ci la inspiré wu nekkoon mag ñi nga xam ni Euh, dañ daan bind di xamle lenn ci njàngaleb sëñ Tuuba rawatina ci wàllum way suñu tuddee sëñ Moussa Ka tudd sëñ Mbay Jaxate damay wax ne génération boobu on peut parler d'une génération d'or mais ginnaaw gi gisaatuñu wal ilaa am na ñuy jéem naam waaye euh, noteur boo xam ne day ñëw mën rivaliser je bien mes mots mën rivaliser ak Serigne Moussa Ka Serigne Mbaye Diakhaté maa ngi koy soog a gis ci suñ Bassirou moo tax euh, ma nga xam ni moom texam jot ñu ko édité mais ay audio la ma daan envoyé may transcrire texte bi nga xam ni soo ko dee jàng dangay mel ni kuy jàng wolofal avec une écriture arabe mais ma transcrire que ba noppi def une traduction te avantage bi ma am mooy c'est un auteur contemporain yenn saay ma interpellé ko ni ko bayit sàngam lan nga ci bëgg junj kon loolu mooy euh, li nga xam ne moom la ñuy ubbee ba su amee yeneen laaj yoo xam ne dañ koy euh, toftal ci ci ci ci téere bi ñu ñu. waaw baax na kon euh, suñu waree ñëw nag ci jëmmi téere bi dafa am ay subdivision ay pàcc muqaddimaat la tàmbale foofu soo gisee mbind mi dafay mel ni kuy yëglu mën naa wax ne day présenté wu wax moom may kan ñu teg ci diiwaan teg ci mu teg ci taaru jullit ndax damay wax ne nit ki su fekkee ne da woote wala nga jàpp ne yow murit nga avant ngay doon murit d'abord jullit ngay nekk mu toftal ci kàddu soññe daldi indi benn xet mu foofu ba noppi nag indi baleen téere boo xam ni daka jagleel di ci wane njëbbal téere bi mu duppee ko aslamtu nafsi muy mbind moo xam ne ku ci sëgg rawatina soo jëlee taarub jullit lépp loo xam ne lu ñu bind la ci wàllum fiq jullit bi am na benn wàccuwaay am na ay doxin yoo xam ne soo yoree mbind mi loolu lépp dala ko ci da ci da daf ko cay bind muy lu am solo lool te loolu day loo xam ne de par notre formation day lu rëy si ñun ndax bi ñu nekkee université di gëstu ba ci euh, section yi newoon su ma fàttalikoo bi ñuy def la littérature comparée dañ jëloon benn thème tudde que l'exil le thème de l'exil des des textes sacrés aux textes profanes nga xam ne tudd nañu ay nit yu bare ba tudd ay malaaka réyal seeni jaar-jaar waaye dama daan yëngal sam bopp rek ndax dama naan képp kuñ fi mën tudd ba léegi tudd ñu waaja suñu waaja mu Cheikhul Khadim saa boroom dogal suñ dee wër les rayons xool bibliothèque yi li ñu bind walla boog man li ma jote gis te sànq le professeur Doudou Mané Diouf wax na ko ay tubaab ñoo daan bind te damay wax ne wujj su dee sëlëm moroomam jàpp naa ni kanam nga du set te l'histoire retiendra doomi aadama bi warta jéggaani dama koy déplorer le Sénégal li ñu tardeel mooy jéggaani ak roy da gis ay intellectuels yoo xam ne suñ dee jël kàddu suñ dee def ay références ay Karl Marx la jël mais am nañu complex tudd ku tedd ki muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kon suñu dellu siwaatee ci téere bi c'est un patrimoine de la Mouridia peut-être su ma lay wax mën nañu jàpp ne c'est un des termes élogieux ci lay waxe waaye connaissant l'homme ak li bind ak li ñu génne ñun su amee ay lecteurs yu sëgg ci téere bi dinañ ci gis ay njëriñ yu am solo suñ Bàmba may Mbàkke macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Thioro Mbàkke kon jàpp naa ni ñi nga xam ne si ñi ngi teewlu jotaay bi du ñàkk ñu gën a am vision ci ni bindee téere bi daal ci jëkk yaa ngi leeral la dimension spirituelle de l'auteur en tant que tel qui est un croyant un disciple kon nekk na kenn koo xam si yaa ngi koy leeral sa biir wax dafa ñëw sax di rivaliser les quatre piliers ma leen di appelé ku ci mel ni sëñ Mor Kéré Cheikh Samba Diarra Baye sëñ Baye Diakhaté ak sëñ Moussa nga xam si képp koo xam si da ngay gëstu wàllu wolof rek. da nga xam ne ñoo ñoo njëkk way sëñ Tuubaa boo demee ci njur njaaj sëñ Moussa Ka moom faral xam sa wéy wi loo ko way waaye xam ba dem sa ni kay la jaxateeg Samba suñu moom waaye nañ ko balaa jël nga xam si sëñ Moussa xam ne nag ci dexu kay la laa naa ak Babacar Sadikh ngeen nga xam si ku ci nekk tey xam na war na sax moom xam ki nga xam si moom mooy sëñ bi nga topp ci waaye lu koy sëñ bi nga dikk ko wéyaat ci leneen pare ci leneen yoon nga yoo bi kàddu solo la nag mu ñëw dundal li nga xam ne mooy suñu làkk ndax bind yi bari na bind ci arab am nañuy ci wolof comme transition euh, bi waaye am ñuy bind ci anglais am ci bind ci leneen waaye moom dafa jël ci làkk wolof waaye wolof bi lu jar leeral ndax moom ci xaajam yi la doon bindee nga xam si day jën ay lettre alphabet arab ci lay bindee wolof yow nga jël loolu sotti ko transcrire ko ci wàllum latin ba pare traduire ko en kon téere bi ñi nga xam si xëy na jotaguñ ko teg bët ñu xamee ne téere bi noonu la demee nga xam si sëñ Bassirou Lo Warga moom mi ko bind te ko bind ci xaajam yi sëñ Cheikh Thioro Mbacké jël ko ndax moom dañuy sens bi mu am bokk na ci li ko gën a defal tawféex mooy un auteur contemporain ci la bind koo xam si tey bu demee ba li muy li mu koy li mu bind amu ci dëgg-dëgg euh, déggin da koy laaj interpellé ko mu leeral ko kon loolu day wax ni ki ko lire dana xam ne kii wér lay lire ba mu leeralee loolu mu wax ni am na ci texte boo xam si envoyé woon na leen ko ñoom si jamono yi nga xam si xëy nekk nañ ca l'école ba waaye mu wax beneen source d'inspiration muy sëñ Bayo. mu bind un aspect de la poésie wolofal mouride l'éducation morale de l'aspirant al mouride dans mu nekk benn ouvrage bu am solo moom it ñëw ci comme un prix Vallée sur la littérature wolofal mouride nga xam si tey képp koo xam si liir nga ko rek da nga xam dëgg-dëgg yi Serigne Mbaye Diakhaté li doon soññee ngir aji nam ji nan lay def baagu suñu borom waaye nan lay mboolem jikko yi nga xam si ab taalibe moom la war a lamboo kon boobu mu nekk benn boo xam si tam la sukkandiku ngir bind bi nga xam si moom mooy diwaan wut saadix waaye mu leeral lu am solo ndax ouvrage boo bind xëy na daa am noo tëggee mu tuddee euh, euh, comme moom nu ko leeralee ci tarjumaan nga xam si auteur bi day présenté boppam moom day wax moom mooy kan waaye way yi nga xam si nekk na ci téere bi muy taarib jullit muy mele yi nga xam si ab jullit du ko war a da ko war a meloo mooy jukko yu baax rek ay teggin naka noonu muy soññee moom boo xoolee ci wayam ndax tasawuf soññeek taarub julli yooyu yëpp day mel ni dafa jëlaat sëñ bay jaxate ndax ñoom koo ci jël rek am na ñoo daan noo daan wayee bu dee Seex Samba jaare gën nañ koo xam ci tagg li ci mel ci yoonu gànnaar ak diggante may yi ko may yi ko sëñ may sëñ Musaa Ka ñu gën koo gën a xam li ci bare bari ci mboor boo xoolee ci jësaawu sakoor nga xam day nettali histoire sëñ bi

que doit euh, que euh, que euh, que le quête d'un comportement pour un murid sa murid sadiq nan lay def ba nekk ab murid sadiq kon lii day mel ni ab yóbbal lay nekk comme ni sëñ Tuubaa nee na les itinéraires du paradis muy Masaalikul Jinaan nga xam si yoon wala yóbbu àjjana kon kii mën a ko yoon woo xam si boo jàngee téere bi jukkoo jukkoo yi da nga doon ab murid sadiq kon loolu sëñ Basiru Lo dafay indi soññe indi taarab julli waaye tamit indi njëbbal njëbbal nga xam si mën naa ni moom mooy première mën naa Eh, ci ci ci yoonu murit ndax bala ngaa nekk murit nag da ngaa am da sëriñ daal di jébbalu loolu dafa bokk ci sàtt murit kon njébbal joxe sa bopp di cee mu ne tuddee l'allégeance ou bien mu dikkaat leer ci benn thème boo xam si dama ko jox muy le thème de l'exil muy wax ni gaa yu baax yi nga xam si yëpp tudd nañ leen moom xelam dafa def ñu ba léegi tuddaguñ ci tuddaguñ Seexul Xadim ndax euh, comme ci wolofal la ne rek sëñ Moussa daan na wax naan waaju xamul lay jéem a dagaani ci kudul jeexal mbaa mu jéem a yalwaani daan ni sëriñ bi kudul mbërit war a faral làngam ko waaye kudul rëbbit war koo yoroo longam ko daan ni ku bëgg jàll bu dex da ngay jubóol ak moo da ngay jubóog moo jubóol ak moole mbaalu ko may jasi dee jël sa yella kon loolu day wane ni kenn du sëñ Tuubaa waaye ki nga xam si suñ borom moo ko def mu nekk euh, un survoi de l'humanité képp koo xam si bëgg nga texe àdduna àllaaxira rek war nga ñëw jox ko sa bopp kon sëñ Moussa di ci leeral loolu livre bi nag moom mu jàppee ko comme un patrimoine patrimoine la ndax euh, jëmm yi mel nii di leen ndax bind bu fi borom jógee tamit mbind mi day des kon jëm yi day tax tey ku déglu woon sëñ basit Lo da nga def gëstu ci moom xam fan la nekk ngir mën a taataan ci moom ci moom ndax xëy na comme ni ko seen Cheikh Thioro defee euh, li mu ci gën a li ci gën a doy waar sax mooy sang boo xam si daa demaat ci ci njaboot mën naa daal suñu suñu Abdourahmane Lo wala boog ci eh, jëmm yi mel nii di xenq seen seen seen xam-xam kon day wane modestie ak humilité waaye di wane ni xam-xam fu ne mën nañ ko fee mën ko fee jëlee ndax tey mënoon na koo yemale ci sëñ Moussa Ka wala bind ko ci Cheikhul Khadim waaye day loolu lépp njàngat la di wane ni xam-xam fépp foo xam si nekk na fa dañ ko war a yitte dañ ko war a yittewoo dañ ko foo war a jëlee kon loolu dafa nekk lu am solo tamit waaye patrimoine bi mu wax ci ouvrage bi lu jar a bàyyi xel la ndax jëmm yi tey da ngay gis ñoo xam ne si tax dañuy def exposé tey ñu waroon a dem ci sëñ Bassirou waaye tey jii texte yi nga xam si sëñ Cheikh Thioro Mbacké daf ko traduit français day gën a dimbali taaliba yooyu nga xam si tey moo xam diwaanu Thiès ak fu mu waaye mën a nekk rek il suffit que tey boo liiree téere sëñ Cheikh Thioro Mbacké rek xam lu bëree bëri ci wàllum sëñ Basiru loolu waaye mu traduit ko traduction boo am solo ci wàllum français ndax li gën a metti jamono yi mooy làkk local bi nan la ñuy def ba yóbbu ko ci france ndax dangay am ay baat yoo xam si doo xam dëgg-dëgg li muy tekki ndax sànq rek yaa ngi naan ma euh, tradition bi moom daf ko riime waaye boo ko traduire doo am saas li naan kii traduit yi nga xam si tey li li wolof bi wax ba riime toolu tey boo ko indee ci làkk kàllaam nasaraan mën naa mën naa bañ waaye teewul yax yaxi way wa dëgg kan ko dafay des kon loolu dong moom moo ci am solo wax dëgg yàlla mu nekk ouvrage bu am solo boo xam si eh, facile à lire aussi ndax eh, boo ko ubbee rek eh, caractère yu leer nañ moom lañ ko bindee ñu mën ko ci mool bu boo am solo photo ku tedd gi nekk ci sëñ Bassirou ne ci suuf limite day tax nit ñi découvrir jëmm ji ndax xëy na peut-être suñu borom def na am na ñoo xam si da ngay dégg seen tur rek waaye mosoo gis seen photo waaye comme yow avantage bi nga am taw tawfeex gi mooy ki nga bind day dund mooy auteur la boo xam si auteur contemporain la kon day lekk ni mboolem loo bind rek da nga sukkandiku ci moom li nga xamoon nga laajte ci mu wax la nga bind ko ci kàllaama gu leer kon moom sëñ euh, Cheikh Thioro Mbacké du man di ko sant rek di ñaan suñu borom daal def tawféex ci téere bi di ko recommander ñëpp waaye di wax ni ñi nga xam si tamit gëstu ñoom ne leen ñii sukkandiku ci mel nii dafa am solo rawat na ci kàllaama gi nga xam si moom la jël muy làkk wolof ndax euh, euh, jàng ci saw làkk moo gën a yomb nga xam que li lay jàngal moom professeur de lettres la xam na ci dara day jàngale ci français kon li nga xam si def na ko muy jël ci làkk local bi ni ko ci français loolu dafa nekk lu am solo noonu la ñu mën a jëlee yeneen di ko traduire moo xam ci anglais espagnol rek allemand ak làkk bu mu mën a doon kon sëñ bi kon da lay delloo kàddu gi rek dina bàyyi nga sant euh, mbokk taalibe yi waaye tamit sant ñi nga xam si wax dëgg yàlla ndax téere xaw a doy waar nit ñi dañuy jekk gis téere ba génn waaye fam ba génn ak toppaat yaag yooyu yëpp daanaka liggéey nit ñu bari la kon loolu tamit du ñàkk xëy na boo ci amee ay kàddu cant jëmale ci ñoom ak lecteurs yi ak naka la ñu mën a def ba koo xam si bëgg na ci téere bi fan la koy mën a fàggoo yu demee noonu ngi mbokk taalib yi ñu mën a fexe ba jariñu ci téere bi waaw jërëjëf euh, sëñ Bamba Mbay euh, loolu nga wax euh, ne ku dégg fu ñu tuddee loo loo ndaam mën naa wax ne sëñ tuubaa daa am lu mu jagle loon sëñ Abdourahman loo muy wàllum njàngale te soo nee loo soo nee ndaam tudd soxna Aminata Lo te jëmm ji toog jàkkaarloog yéen sët la ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon man su ma demee su ma dee taataan lenn ci sëñ Basiiru Lo loolu sengoor waxoon comme les lamentins vont boire à la source kon dama delloo boom gi si mboy mboy ga loolu nga wax it ci wàllum bind damay wax ne réew yëpp bi ñu amee développement ci seen làkk réew la ñu développé wu France français lañuy ñuy làkk Allemagne Chine chinois te gis naa benn regain benn renouveau laa laa ko mën tuddee muy lan muy léegi am na ay bindkat yoo xam ni c'est des hommes de lettres léegi dama leen gis ñuy bind ci kàllaamay réew mi te lu am solo la ndax nit ki sa identité culturelle waroo ko bañ saa borom dogal na ce n'est pas pour euh, me des fleurs ou bien pour euh, montrer une importance peut-être que je n'ai mais li ma la mën wax mooy des fois même dans la vie courante dañuy jàpp ne su ma nee ab jàngalekat laa professeur laa professeur d'arabe lañ may teg parce que peut-être cette culture française amuñu soxla ndax la sëñ Moussa Ka waxoon ak ñaari rakkam ya Cheikh Coro ak Balla Coro Bamba taxoon ba daaw ñu daw waxi bureau kale nga seex fa jaaxal kale nga sa ndar masañ daan koy dal tabaxal kon loolu c'est historique loolu ñu naan cosaan dafa dër ji nga l'histoire l'histoire se répète sànq bi may déglu le professeur Doudou maane juuf bi muy wax Cheikh Maam Cheikh Ibrahima Fall jéego yi mu amoon doon doxal ci zaahir digganteem ak tubaab bi loolu day wane ni monde bii ñuy vivre monde bii ñuy dund tubaab bi dafa am mission boo xam ni bokkut ak mission bi ñu war am ñun te sànq ba léegi ñi ngi tudd ces auteurs mooy ñooñ nga tuddoon sànq muy sëñ Moussa Ka sëñ Baye Jaxate waaye jàpp naa ne war na maa mën a euh, au rekk rek ma ibbi benn page joxe lenn wala boog wane lenn ci ci ci mbind mi fii dafa wax ne màggal nga màgg suñu borom màggal ña màggal suñu borom islaam la nangu la ngay borom yaa Cheikh Ahmadou Mbacke màggal nga mboolem xutbu ya làmboo nga mboolem wérdi ya ràngoo nga mboolem seen leer ya tiiñoo ko Ahmadou Mbacké assalaamu seyxul xadiim aleykum xaadimul xadiim yaddullaahi yow yaa ko am yaa seyxi Ahmadou Mbacké antal karimu nga waxoon antal karimu yaa ko doon muhammad mala wamatoon yaa Cheikhi Ahmadou Mbacke borom bi dolli ko jàmm borom ngir yépp am jàmm na jullit ñëpp am jàmm jàmmal Mouhamadou Mbacke Ahmadou yaa di alquran yaa nu xamal mbooti quran yaa tax islaam dootul tëraan yaa Cheikhi Ahmadou Mbacke li yàlla wax nangeen ma gëm jiitu jaamu na ma xam ñi bëgg xam topp ki xam ñoo wóolu Ahmadou Mbacke làq nga xam xamu téere làq xam nga jiitu téere jëmmal quraan ngën di téere yaa cheikh yi Ahmadou lijjanti nga mbir ya lëjoon may nga fit ña ko amul woon yëkkati nga ña suufe woon yaa cheikh yi Ahmadou làmboo nga mbooleem yu baax ya doon nga mbooleem yoneen ya kéemaan nga ci biir kéemaan ya yaa cheikh yi ahmadou mbàkke la yàlla tànqaloon xudar ko ca naan am dund xudar maa ul xayaat yaa ko for yaa cheikh yi ahmadou waaye damay wax ne même suñu defee traduction bi xasida yi ci boppam dafa am ay denc yu nekk ci biir ndax su ne la yàlla tànqaloon xudar ku ca naan am dund xudar maa ul xayaat yaa ko for yaa Cheikh Ahmadou Mbacke ay way la de waaye boroom fa ko jële du fi fépp te bayit bii ma jàng am na denc bu ci nekk ndax su ne sëñ Touba moo for maa ul xayaati loolu mbir la am na loo xam nag duñ ko duñ ko taaj pénc foofu daal ci gàttal ñu ñu yamale ko foofu rekk ndax waxtu wi xat na te am na suñu yeneen mbokk taalibe yuy war jàll ci plateau bi kon di sant ñëpp di sant am mi ñu jox opportunité ñu mën euh, ñu mën ñoo découvrir avec cet ouvrage di wax ne am na yeneen yu war a ñëw ndax production littéraire bi ma gis ci yoonu murit mel na ni ku si nekk yaa ngi ciy bay sa te la may wax rekk am na ñu bare jàppoon nañu ne tubaab bi wa ilaa képp koo xam ni fréquenté nga lekkool ab yambar ngay nekk boo xam ne Euh, da ngay doon ku nekk ku yaafus ci sa wàllu diine te loolu wéru kon daal foofu la ñuy daanele kàddu yi te xam ne incha allah rabbi ku yër mbind mi dinga ci jële lu kawe sa njort waaye fi may daanele rekk mooy mbind mi. mbind baatin la man mi ci sëgg diirub ñaari at c'était pas évident te ay ay denc la ci biir denc moom la def ci biir téere bi domage nag nekk na ci jamono joo xam ni xam-xam ñi ko yittewoo bareetul yoonu tasawu fit ñi ci dox bareetul ginnaaw ba léegi nit ñuy xaalis rek lañuy jaamu méddum àddina ni ko suñu maam ja waxoon Cheikh Sidi Mokhtar yàlla yàlla yokk leeram kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm walhamdulilahi rabbi alamin jërë ngeen jëf kon jërëjëf seen Cheikh Thioro Mbacké moom mi nga xam si moo doon présenté ouvrage diwaan Mouride Sadikh Euh, Serigne Bassir Lo war nga bind ko moom moo traduire ko ci àll ak français euh, maison d'édition bi les éditions Texé daal koy mool génne ko euh, di wax ni sant nañ ko bu baax wax dëgg yàlla ci kon ne xam ne ni màggal gi ak xataay bi gànni di la xaar ci kilifa waaye yooyu yëpp mu bàyyi ko ñu fas yéene ànd ak ñun jotaay bi kon ñu sant bu baax kon mbokk yi ko waxee rek leen jox daje incha allah ci kanam tuuti ci beneen jotaay ak ci beneen thème ak ci beneen téere kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa waaw damay tàmbali rek waaw. kilifa gi moo fi toog kilifa gi kilifa gi. kilifa gi moo fi toog kilifa gi. kii toog kii daal mooy kilifa gi kilifa gi moo

bi ñu àggee ci tëj sëñ Afia bu sa ñëw tëj liggéey bi mel na ni jataay bii moo nekk suñu ñetteelu jataay ñu war cee amal benn ardul kitaab ànd koog waa daayira muqaddamatul xidma su ko defee nag mel na ni ànd nañ fi mboolem kutub yi nga xamante ni Serigne Cheikh moom Cheikh Amadou Mountakha moom la bind moom moo ko doon ardal boppam bi ñu noppee tamit ard nañ fi téere boo xamante nii dañ ko bind ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina wal Mouridat waaye bi ci mujj mooy téere bi nga xamante ni moom la sëñ Cheikh coro Mbacké doon ard léegi ñu jëm ci ñeenteelu jataay bi ñu ci ànd ak mbokk yu baax mbokk yu sell waaye duñ ci sori ndax ki nga xamante ni moom moo war a modéré jataay bi mi ngi toog ak ki nga xamante ni moom moo war a àdd téere bi yëpp su ko defee kon dañuy jox ki nga xamante ni moom war jataay bi mu wax ñu kan mooy àdd téere bi ngir njëkkante ak waxtu yi bala ñuy àgg ci timis gi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 sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yawmiddin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon dañuy continé ci liggéey bi rek ngir bañ a bañ a guddal bu baax a baax bu ko defee ñu jox ko kàddu yi mu ñëw ak ñun ci téere bi nga xamante ne ni def nañ ko fii moom la daayira bi def bu ko defee moom mooy def présentation bi ñu ñaan yàlla ubbil ko defal ko tawféex ba mën koo jottali comme ni ñu ko bëggee sëñ bi tafaddal mashkuran jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi sax sahbihi wa mawala ñu ngi nuyu mbokk yépp di leen ziar di leen ndokkeel ci jamono yu sell yi nga xam ne ci lañ nekk nii muy di waajal bisub cant bisub jaamu yàlla bisub delloo njukkal waaye bisu fàttaliku suñu jàmbaar jooju di Cheikhuna Ahmadul Xadim comme ni ko sëriñ bi waxee Euh, liggéey bi dafa yaatu lool tax na xëy na ci suba ba léegi yéen a ngi dégg ñuy gaaral ay téere yu wute wute ci ay anam ak i tomb yu wute ci jotaay bii nag incha allah ñu fa yéenee gaaral téere bii nga xam ne moom la daairatu muxadamatul xidma liggéey te li ko tënk rek mooy waxtaan yi nga xam ne moom la daayira bi di faral di organise ci biir weeru koor di ay waxtaan yoo xam ne dañu koy dundale koor gi ci wàllu dunduk ruux comme ni ñu koy dundale ci dundug yaram te loola ñu gën a jëmm ci waajal gi ñuy waajal ay ndogoog yu ni demee waaye bala ñoo ndogu comme ni ngeen ko xam ne danañ def bis bu set ñu amal fi waxtaan waxtaan yooyu nag mën nañ koo tënk ci ñeenti tomb am na ci yooyu eh, ay jàngale lay doon ay duruus li ñu tuddee ay duruus am na ci yoo xam ne ay fataawa lay doon mooy rek ay tontu laaj am na ci yoo xam ne ay am na ci yoo xam ne ay mawduwaat mutanawwi lañ koy faral di tuddee mooy rek ay thèmes d'actualité yoo xam ne day wax ci ay mbir yoo xam ne jamono laaj na ko waaye nit ñi soxla nañ ku leen ci ubbi ci wàllu diine daanaka ñeenti tomb yooyu moom la daayira bi di faral di séddale ay waxtaanam ci kor def nañ ko ay at yu baree bari nag waaye ci at yu mujj yi ñu xalaatoon ne ginnaaw xam-xam dafa gën a yaatu anam yi ñu gëstoo it gën a yaatu te kenn ku ci ne looy liggéey bëgg nga mu gën a law gën a sax te la ko gën a mën a saxal gën koo lawal gën koo yaatal mooy nga bind ko yaxal ko ba képp a koo soxla man koo am ci anam goo xam ne dana yomb tey dana ko amal njariñ loolu moo taxoon ñu gis ne kon war nañoo tàmbali di dajale waxtaan yi di ko yaxal di ko génne di ko tisaare liggéey boobu ñu ngi ko njëkk a door ci jamono yi 2007 2017 2018 waaye nag téere bi ñu ci njëkk a génn ñu ngi ko génne ci atum 2018 ci atum tubaab mi dëppoog ci gàddaay gi 1439 ci lañ njëkk génne téere boo xam ne dajale na ay waxtaan yu bare bari yoo xam ne amaloon nañ ko ci ay koor yoo xam ne ci at yooyu la muy téere bii ngeen di jàkkaarloo booba nii lañ ko tudde woon muy amalul muxaadaraati ramadaniya al munaqida bi masjidi Touba al jamia muy liggéeyu waxtaani koor yi nga xam ne moo daan amee ci jumaa ju mag ji fii ci Touba téere bii nag biñ njëkk a def nga xam ne moom laa wax léegi ne ñu ngi ko def ci 1439 2018 boo koy xool tolloon na ci ñatt téeméeri xët ak juróom-benn fukk 260 pages amoon ay tomb yu wuute yoo xam ne mën nañ koo tënk ci ñeent ba juróom tomb bi ci njëkk da doon wax ci wàllu fiq bi ci tegee doon wax ci wàllu fatwa te mooy tontu ay laaj bi ci tegee doon wax ci wàllu ay àq ak yelleef bi ci tegee doon wax ci wàllu tasawuf bi ci tegee nag nekkoon ay divers maanaam ay masala yu wuute bu dee ci fiq bokk na ci tomb yi ñu mooy koor ak aj ak lu aju ci wàllu bor ak imam malik ak mazhabam wala école bi nga xam ne moom la indi yooyu ay boroom xam-xam yu mag taxawi woon ko daayira bi fexe ba yeexal ko tusaare ko bu dee ci fatwa yi ci téere bii may wax tànnoon nañ ci lu mat ñeent yu xeetu yenn yi sëriñ Mbàkke Abdourahman moo ko defoon yenn yi sëriñ seex na Mbàkke Abdoul Wadoud yenn yi Cheikh Ahmad Bousso mu sëriñ Alxaaji Ndumbe yenn yi sëriñ seex Bousso Hassan muy ay tontu yoo xam ne yu daj la ci ay masala yu wuute am na ci laaju ci wàllu fiq am ci laaju ci wàllu tasawuf ci wàllu qiraa ci wàllu tafsir ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu dee tomb bi jëmoon ci wàllu àqa waxtaanoon nañ ci àq ak yelleef yi jaar ci diggante way dencante àq ak yelleef yi jaar ci diggante kilifa yi ak seenu njaboot àq ak yi jaar ci diggante ay dëkkandoo àq ak yelleef yi jaar ci suñu diggante ak bàyyi ma yi àq ak yelleef yi jaar ci suñu diggante njaboot gi sàmm gi rek ñi ñëpp war a sàmm àq ak yelleef gi jaar ci suñu diggante néew ju doole àq yelleef ji nga xam ne ñi jiite am nañ ko njaboot gi amee leen ko àq ak yelleef yi nga xam ne ameel nañ ko jëriñ yi yii tamit di ay tomb yu am solo yoo xam ne ay borom xam-xam taxaw woon nañ amoon ci beneen tomb boo xam ne dafa jëmoon ci wàllu sufisme soufisme maanaam wàllu tasawuf ak murit gi bokkoon na ci yañ ca jëloon mooy waxtaane woon nañu nan suñu suñu yitte ju far ji nga xam ne am nañ ko ci wàllu yar ruux defar nit daal ak it xasaay di sëñ bi importance bi mu am ci dundu murit ak sikar ak wérdu ak nim mën a jeexitale ci yar ruux loolu booba nag ñu jëloon ci wérdu maxuus mu nekk comme exemple bu dee masala yu teqalikoo yi divers yi waxoon nañ ci a Cheikhul Xadim wa te mooy Sëriñ Tuubaa ak koor min hadiyi alquran te mooy rek orientation yi nga xam ne alquran joxe na ko te mu a jagal suñu dund àdduna ak àllaaxira waxoon nañ ci relation bi diggante ay wujju mën a am ak jeexit jeexit yu safaanu yi mën a jur ci biir famille mooy impact bi mën a am rek impact bu négatif bi mën a am waaye waxoon nañ ci wàllu al ilmaniya gàttal mooy lan dëgg-dëgg ak yan melokaan la am ak lan moo ci position l'islam kon lii ci gàttal mooy mawduwaat yi nga xam ne moo nekkoon wala boog thème yi nga xam ne moo nekkoon ci téere bu njëkk bi danaa wax nag niñ ko liggéeye woon wax it niñ liggéeye téere bu mujj bi ndax daanaka benn yoon la rek bu dee téere bu mujj bi nga xam ne gannaaw buñ génnee téere bu njëkk bi daanaka ba am juróomi at lañ ko génnee ndax wax naa leen téere bu njëkk bi 2018 la bu dee bii 2022 la sotti ci lañ ko mool kon diggante bi ba xool am na différence bu mag a mag ci wàllu ay at waaye noonu la amee différence ci wàllu xerañte ndax ñaari téere yi ku leen gis da nga xam ne bii moo ëpp fuuf bii moo gën a bari ay poñ bii lañ gën a sonne it ci yu baree bari yi ñu rawoon ci bu njëkk bi yëpp yi ca ëpp solo jëm nañ ko dab dabaatal ci bu ñaareel bu dee bu njëkk bi 260 page la comme ni ma leen ko waxee woon muy ñaar téeméeri xët ak juróom-benn fukk bu dee bu mujj bi ëpp na ko téeméeri xët ak ñeent fukk ndax bii 364 page la buñ demee ci Maodo Adi it noonu la demee bii booy xool mën nga ko li daan nga ci juróom-benni poñ am na laaju ci wàllu fiq fii moom dafa gën a yaatu ndax wax nañ ci jubluwaayu charia ak niñ ko war a sàmmee docteur Abdou Lahad Sané moo ko defoon jaamu yàlla mooy dëgg mooy lan dëgg-dëgg ak yan jeexit la mën a jural aji jaamu yi loolu Cheikh Serigne Mountakha Dara moo ko defoon colka ci nii ko lislaam gise Serigne Cheikh Naa Mbacke Abdou Lahad moo ko defoon julli form bi ak lam làmbool mooy bitteeg biir daal liñ ko liñ war a sàmmanteel ci bitti ak it li ñu war a teewlu ci biir bu ñu julli loolu oustaz Habibullahi Jatara moo ko defoon koor atteem ak i tegginam Serigne Cheikh na Bousso Moustapha Baxeer moo ko defoon julli korek tabaski ak muurum koor oustaz Massam Bousso Abdourahman moo ko defoon yi nga xam ne dëgganu ñu koy ñu ciy jëflante ci jaay ak jënd Serigne Mbacke Abdourahman moo ko defoon société ci ni ko li maliki gisee société yan xaaj la am ak yan àtte moo ci aju Abdul Qadir Bousso Alxaaji Cheikh moo ko defoon àtte ci lislaam euh, inspecteur Cheikh Ahmad Mbacke Ñang moo ko defoon njabar lan mooy ab àtteem naka lay feeñe mooy yan phénomène yan form la am rek ak yan gàllankoor la mën a jur loolu docteur Xaadim si la moo ko defoon bu ngeen xool mixwar fiq yi boobu euh, da gis ne xeetu na am na ci loo xam ne dafa aju ci jaamu yàlla am ci loo xam ne dafa aju ci wàllu jëflante familial am ci loo xam ne dafa aju ci wàllu jëflante ci wàllu ci loo xam ne dafa aju ci wàllu ni ñuy euh, àtte ci diggante euh, ku tooñ ak ka mu tooñ am ci loo xam ne dafa aju sax ci suñu wàllu jëflante aada yi rek te mooy njabar yu ci aju kon ngeen gis ne kon bunt bu yaatu la waaye bu xeetu la bu dee ci fattuwaay yi mooy tonti laaj yi tànn nañ ci ñetti borom xam-xam génne leen seeni tontu bokk na ci sëriñ Cheikh Bousso Hassan sëriñ Mbacke Abdourahmane ak sëriñ Cheikh naa Mbacke Abdoul Wadoud kon na ma ko waxee woon ci téere rek noonu la amee ci téere bi mooy ay tontu la yoo xam ne dafa jëm ci ay laaj ak i masala yu xeetu yi aju ci jaamu yàlla yi aju ci jëflante yi aju ci tasawuf yi aju ci wàllu xalaat yi aju ci wàllu jàngiinu alxuraan yi aju ci wàllu tafsir wa hakaza tomb bi bu ñaar yooyu jàllee mooy lu aju ci wàllu tasawuf ak murit ji bokk na ci tomb yi ñu ci jëloon mooy yeesal ci diine mooy lan ak nan lañ ko mën a defee sëriñ Afiyatu Ahmad Ñang moo ko defoon Euh, bokk na ci it yañ jëlal mooy Cheikh Ahmadou Bamba al Abdul Xadim Serigne Touba jaamukatu yàlla bi di surgab yonente bi da koy tënket nag ci raditu billahi rabban la mu waxoon ne yàlla rek la gërëm loo muy buur loolu ci nan la feeñe ci ay waxinam waaye nan la feeñe ci ay jëfinam euh, waxtaan woo ki ko taxee woon mooy sëriñ Khalil Mbacke Moustapha Habs as Cheikhul Xadim wal Islam Serigne Touba ak l'islam xam nga ba mu waxee ba mu daan wax raditu billahi rabban daf daañ daf ci daan teg wa bil islaami diinan nan la jëmmale lislaam jooju ci wax ak ci jëf ak ci yar loolu ka ko taxee mooy sëriñ ahmad mbàkke murtada am na ci beneen tom buñ jëloon mooy yenn déggiin yoo xam ne nañ koy déggee dañ ko war a joyantiwaat dañ ko war a wéralaat ndax leneen njuumte am ca bokk na ca déggiin yooyu mooy jaayante dëgg-dëgg is niñ koy déggee ak lan la wund ca dëgg-dëgg ci na ko jàngale ndigal ci niñ koy déggee ak na ko la ko sëriñ bi jàngalee ca dëgg-dëgg waaye xidma ci niñ ko déggee niñ koy déggee naka la ko sëriñ jàngalee dëgg-dëgg loolu sëriñ Afiyat Ahmad Ñang moo lan looy lan yenn mbir mooy prior ay priorité ca sëriñ Tuubaa lu mel ne jàng priorité la ca moom jaam yàlla priorité la ca moom ak yeneen ak yeneen loolu tomb la bu am solo boo xam ne ki ko defoon mooy sëriñ Fallou Moussa Thierno ñaan teggit yi mu am ak jeexit yi mu am euh, mudir Ahmad Samb moo ko defoon mooy directeur Al bu Ndar moodu moodu gi moodu moodu murid yi nga xam ne ñu ngi ci bit yan mooy seeni jafe-jafe ak yan moo ko mën a saafara loolu ki ci gëstu woon bind ci mooy Serigne Abou Madiana Chouaïbou Kébé kon loolu mooy aju ci wàllu tasawuf ak wàllu murit gi bu ñëwee nag ci euh, mawduwaat mutanawwi'a yi te mooy rek thème yi nga xam ne dafa xeetu bokk na ci yañ ci jël mooy wuute nuñ wuute mooy lan lan moo koy indi ak yan teggin lañ ci war a sàmmanteel loolu ñu ngi ci àndoon ak Serigne Cheikh naa Mbacke am lu jàmm ban importance la am lan mooy njariñam ci dundu nit ki ak société bi ka ko taxe woon mooy Serigne Mouhamad Xarban Mbacke Murtada jàmmoo jàmmoo dëgg-dëgg mooy lan ak yan moo ko mën a dëgëral ka ko taxe woon mooy Serigne Moustapha Diop Ndar euh, courant yi nga xam ne mooy yenn xeeti xalaat yu bees yi nga xam ne dafa dugg ci biir yoon wi ak lislaam gi ba noppi di ko màbb maintenant luy tabax tey màbb xeeti courant yooyu naka lañ mën a jàmmarloo ak moom loolu it tomb la boo xam ne euh, ki ko taxee woon mooy Serigne Fallou Boussa Thierno di directeur u Al Azhar bu Thiès nos mbir njariñ yi mu am ak importance bi mu am loolu ki ko taxee woon mooy Serigne Mbacke Abdourahmane ay njuumte yoo xam ne dañ koy def ci wàllu yar muy ay njuumte yu baree bare yoo xam ne ka ko taxe woon gëstu ci génne ko ràññatle ko mooy Serigne Fallou Bousso Hassan wàllu développement développement mooy lan ci ni ko économiste yi xamle yan moo koy dëgëral ak yan domaine la am loolu ka ko taxe woon mooy Serigne Sam Bousso Abdourahmane li ñëpp bokk ak naka lañ ko mën a sàmmee loolu ko ko taxe woon mooy almudir Serigne Fallou Bousso Hassan kon yii bu ngeen seetloo da gis ne ay tomb la yu fasantiku yu wuute waaye yu am njariñ yu mën a dugg ci dund gi ci ay duggin yu wuute waaye ci ay bunt yu baree bari yoo xam ne mbokk yi taxawe nañ ko fexe ba dajale ko càmbar ko topp ko muul ko génne ko tusaare ko kon loolu moo aju ci ñaari wàlli téere yi ci format bi ak it dëgg-dëgg contenu bi li nekk ci biir téere bi waaye nag li aju ci liggéey bi dëgg-dëgg mooy naka lañ liggéey téere bi téere yi comme ni ma leen ko waxee wax naa leen sabab bi tax ñu taalif ko mooy rek bëgg a gën a yaatal njariñ li bëgg njàngaleem sëriñ bi gën a yaatu gën a law te xam nañ ne loolu li ci gën a gaaw mooy bind ndax wax rek bàyyi xëy na ki ngay waxal mën naa dem ba mu yàgg mu fàtte la nga waxoon wala janeen wax ñëw remplacé la nga waxoon wala yeneen ak yeneen waaye li ngay wax la tànk que yaa ngi koy bind rek mooy yaa ngi koy saxal yaa ngi koy dëgëral yaa ngi koy samp yaa ngi bëgg mu sax loolu moo andi mbind mi biñ ba xalaat ci nag ne kon dañuy dajale waxtaan yi ñaari yoon rek lañu amoon wenn yoon wi mooy fexe ba waxtaan ak ñiy taxawee waxtaan ñu koy bindal seen bopp di ñu ko jébbal ñu dajale ko bu ñu ko dajalee ba noppi nag toftale ko ci méthode bi ñu jàpp ne ca lañ wa ci génne ci téere bi bu ñu noppee toppaat ko euh, daa koy jébbal kilifa yi ñu dox ci wax ci jëf ci bam génn bu ko defee ñu euh, gaaral ko daa koy tisaare waaye comme xam ngeen euh, barab yu mel nii ni mu tëddee ñu baree bari ci ñii taxawee jotaay yu mel nii seenu jot léeg-léeg du leen may ci lépp lu ñu wax rek ñu bind ko ñu mën koo bind loolu moo tax léeg ay ngànt di ci am saa ngànt amee ci ki waxtaanoon nag tomb bi ki ko waxtaanee woon bu ngànt amee ci mu mën koo bind dañuy sas kenn ci ñi bokk ci commission culturelle bi boot ci daayira Moukhaddamatoul Khidma mu dem diglu jee waxtaan wax attentivement diglu ko bu baax a baax a baax bind ko ci araab comme na ko ki yo ki doon wax waxe waaye nag xam nga ne li ñuy wax ak li ñu bind moom léeg mën naa wuutee tuuti waaye daal moom léegi ko solo bu mu génn maanaama bu ko bindee ba noppi bu ci ki koy ki koy ki koy ki koy tansiq kiy topp liggéey bi jiite liggéey bi bu jotee ci liñ traduire ba noppi liñ sotti ba noppi da koy yónnee waat ki ko waxtaanee woon bu ko defee moom mu toppaat ko xool bu fekkente ne am na lu mu ciy càmbar lu mu ciy yokk wala lu mu ciy wàññi lu ciy jubbanti mu daal koy jubbanti daal ñu koy soog a joxaat teewul bu ñu ko joxaatee bañ dem ba dajale yi nga xam ne membre yi euh, commission culturelle bi ñoo ko bind. ak yi nga xam ne moom waxtaankat yi ñoo ko bindal seen bopp bu ñu noppee dañu formé waat sous commission boo xam ne ñooy toppaat nag lépp bu ñu noppee ba topp lépp ba yax yëpp mat léegi ñu sasaat ñoo xam ne ñoo koy toftale ñooy xool daal toftale gi ni mu gënee bu ñuy bu ñuy bu ñuy ndax téere day day laaj mën a xëj day laaj aw yoon day laaj méthode bu ko defee yaay yi ci wàllu fiq ñu xool ni ñu koy toftalee ci fiq bii moo war a jiitu bii tege ci bii tege ci duñ ko toftale ci ni waxtaankat yi toftaloo woon wala niñ ko waxtaanee woon waaye dañ koy toftale tartib mawduu yi dañ koy toftale comme ni mu war a toftaloo rek ci thème ak moroom ja noonu lañ koy def niñ ko defee ci fiq noonu lañ koy defee ci tasawuf noonu lañ ko defee ci eh, yeneen tomb yëpp buñ ca noppee nag daa di koy sooga tasfiif tasfiif mooy eh, rafetal rek forme bi ba nga xam ne koo ko gis wala ku àgg ci sa loxo danga ko mën a jàng njàng moo xam ne dana neex ci say gët waaye danga ci mën a gën a am ak teew moo tax ñaari téere yëpp am na ci mbokk yoo xam ne liggéey nañ ci bu dee téere bu njëkk bii nga xam ne moo génn 2018 euh, bokkoon na ci mbokk yi bokk ci commission culturelle te participé woon ci sëriñ Abdul bu Bousso moom sëriñ Alxaaji Numbe sëriñ Abdul Moutalib Bousso moom sëriñ Fallou Bousso Abdul Qadir Bousso Alxaaji Cheikh sëriñ Saalih Bousso Alxaaji Numbe sëriñ Abdul Qadir Mbacke Ahmad Imam Bousso Abdullahi Lo Amdi Moustapha Mbacke Xasan Mbeng ñii daanaka lu baree bare ci waxtaan yi nekk ci téere bii ñoom ñoo demoon digluwaat keset ya enregistrement ba ñoo ko digluwaat daa koy sotti ba noppee ñu daa koy joxaat waxtaankat bi mu toppaat ko mu dellusiwaat suñuy loxo ñu soog a mottali liggéey bi waaye nag niñ ko defee woon ci téere bi téere bii téere bii mujj muy bi nga xam ne moo génn 2022 moom it doxee na noonu am na ci ay tomb yoo xam ne euh, membre yi euh, commission culturelle bi ñoo ko bindal seen bopp bokk na ca ñi nga xam ne ñoo participé ci wàll googu sëriñ Abdul Mutalib Bousso moom sëriñ Alaaji Ndumbe moo ko doon moo doon coordonné liggéey bi bokk na ci ñi ci ñu doon sotti ñu doon bind imaam ahmad bu soxam lu asmaaw moom it ci coordinateur yi la bokkoon bokkoon na ci ñu doon bind abdul qadir bu soxal xaaji seex euh, moo doon toftale téere bi ak di bokkoon na ñi ko doon topp abdullahi loo membre la woon ci ñu doon sotti muhammad bu sa fadil muttalib membre la woon ci ñu doon sotti seex ahmad bu soxam abdul asmaaw moom it membre la ci ñu doon sotti bu ngeen seetloo da ngeen gis ne membre yi doon sotti fii ñenn ñi bokk nañ ci membre yi doon sottiwaat fii waaye am na ñu bokk fii ci téere bi ñu ci ñu participer fii te participer wuñ fii loolu daf lay gën a wan ne téere bi daanaka képp kuñ ci bind sa tur rek wala ñu wane ci sa lenn fekk na nga jëf ci jëf ju tax ñu wane ko mooy rek da am na mawduuya daal am na ak wér am na misdaaqiya euh, kon daal téere la boo xam ne mébét la woon ay xalaat la woon yoo xam ne dem na ba nekk meññat mu ñor moo xam ne tey mën nañ ko jariñoo di wax ne nag lenn la rek ci liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma rawatina ci banqaas bi nga xam ne moom la dénk wàllu culturel lañ na saxaafiya commission culturelle bari na ay liggéey waaye lii lenn la ci liy jëmmal ay liggéeyam ndax xam ngeen ne koor gi bu ñu ko waxee daf caa bokk ci ëpp solo muy waxtaan yi fay am waxtaan yooyu da cay day bokk ca la ëpp solo la ko gën a mën a dëgëral gën koo mën a saxal gën koo mën a jëmmal mooy ñu koy bind di ko yaxal di ko tusaare te alhamdulilah bind gi am na yaxal gi am na tusaare gi am na bu dee téere bu njëkk bii moom lañ ci mooloon bari wutoon tey it ba mu ñëwee dañ ko doon joxe dañ ko doon maye dañ ko doon joxe àddee moo tax dafa gaaw a jeex bu dee téere bu mujj bi nag liñ ci mool bari na lool yaakaar naa ni moom Euh, lu ko jeexal du yomb tey it yàlla dogal na ne euh, fexe nañ ba am na yu bare bare yuñ ci jox kilifa yi ñi doon taxaw ci wàllu muul geeg yooyu am na ci yuñ ci may boroom xam-xam yi rawat na ñu doon taxawee waxtaan yi am na ci yoo xam ne visiteurs yi nga xam ne ñoo ñëw ci jumaa ji ñoom lañ koy faral di jox ak bépp gan boo xam ne rek dafa wàcc ci dëkk bi te soxla ay gëstu yu jëm ci sëriñ bi ndax comme ni ma ko gaaral léegi bari na ci yoo xam ne ci sëriñ bi la jëm téere bu ci ne it bu génnee lañ cey njëkk a def mooy dem ci kilifa gi kilifa gu mag ma Cheikh Ahmadou Mountakha hafizahullah wa raa waxtaan ceeg moom gaaral ko liggéey bi jox ko ci ay copie yu bëree bëri yoo xam ne moom it saa yu amee gan dana ko ci mën a teral comme niñ ko xamee ci euh, bëggum bëgg xam-xam ak ni mu ko mënee yaatal ak ni mu ci yëngoo kon téere bi gannaaw bu maye gi jàllee fexe nañ ba Euh, séddale ko distribuer ko ci ay bibliothèques yu baree bari muy fii ci Touba ak Ndakaaru ak sax ba ci bitim réew ba nga xam ne képp koo ko bëgg a am rek mën nga ko am incha allah ñi nga ci tànk it ak ci mébét fas yéene